ñun ñi keroogee nan la ñuy rawantee ñii dañu dekki sañte dara du leen manki ñi am mbubb rek duñu am tubéy ñii am tubéy kese duñ seen mbubb ñii ngemb rek ñi xaw fale rek nekk seen digg ñi dara du leen wër bu ñuy dem itam bu ñu jéggi siraat ñi wax nañ dañuy mel ne xel ci gaawaay ñi mel ne melax ñi mel ne luy naaw nganaaw ñi mel ne fasu naaru góor ñu daw ñi mel ne kuy waaxu ñi mel ne kuy dox ñi di raam ñi di bafungu noonu seen rawante googu bu keroogee wax nañ sallallahu alayhi wa sallam nee ay malaayka yu raglu ñooy wàcc sang jaam yi jëm fa ñuy daje bu ko ragee malaayka yooyu daañu raglu raglu boo xam ne dana am jëmmi nit ñu leen gis dañu tiit ne dafa ne kenn ci ñoom mooy yàlla dana ne leen ko laaj ana ku yàlla ci yéen bu bu ñu waxee bu ñu tuddee yàlla tuddee leen ko malaaka yooyu daañu tiit daañu xaaju ne laysa fiina rabbuna subhanahu azza wa jalla yàlla nekkul ci ñun subhanahu wa taala bu doomu adama yooyu bu ñuy dem wax nañ ne béréb ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena suuf la soo xam ne du suuf si yama tubaddalu l ardu xayra al ardi wa samawati te barazu lillahi al wahid al qahhar béréb la boo xam ne day tàlli ñaay yi amul xur amul tund amul garab léppay doomu aadama yëpp yi suñ borom bindoon ak jinne yi suñ borom bindoon ak malaaka yi yëpp ñooy wàcc yëpp ñoo fay ñoo fay daje nee ñu troogee jant bi suñ borom dana ko xëcc ba mu jógee boppi nit ñi ñii seen yuur dana xëpp ñi tund bax ñaq yi ñii dana leen agsi ci waq ñii dana leen agsi ci wóom ñii dana leen agsi ci ndigg ñii dana agsi ci seen nopp doomu aadama yi daañu fa taxaw ay junni junni junni ak suñu borom du leen faale du leen geesu ba daañu jàq jeqare loo xam ne daañu ne nañu wuti koo xam ne dana dox suñu digganteeg suñu borom ndax mën ko wax ndax mu attenu ba nu jëm buñ dee dem safara sax ñu dem fi moo moo tane lii bu ñu njëkkee ci yonte yàlla aadama alayhi salaatu wasalaam dana ni leen man suñu borom tere woon ma garab ga ma lekk ca man kay ñi dem fa moom seet leen keneen dem leen seeti noox bu ñu seetee yonent yàlla noox mu leen man mi nga xam ne maa ñaanoon suñu borom rabbi laa tadar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran bul bàyyi ci kaw suuf kenn ndax ñoom na nga leen rey suñu borom wàcce toofaan ba ñëpp dee te man xatala bi daayi fa ka annama xatala bi sayf ku rey ci ñaan yàlla ba mu dee yàlla ne ko fab jaasi xàpp ko kon man bindeef yooyu yëpp ma reyoon leen mu xaw ma nu nit suñu borom xalaat ma dem na ngeen seeti keneen dem leen seeti ibrahima biñ dikkee yonte yàlla ibrahima ne leen déet man mas naa seen ñetti yoon te xaw ma lu at suñu borom di atte ci seen yooyu seen yooyu buñ ko seetee yëpp seen bu ci nekk ci yàlla la dellu dégg nga mu ne leen na ngeen seeti kon isa yonte yàlla isa alayhi salatu wasalaam dañ dikkee mën leen déedéet suñu borom mer na tey jii mer moo xam ne mosu ko mer mukk te dootu ko mer mukk man ñemewu ma faa dem moom nag tuddul benn bakkaar buñ wax ne def na ko waaye neen leen suñu borom mer na mer moo xam ne ñemewu ma faa dem seeti leen muhammad alayhi salatu wasalaam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ma dal di buur ànd ak ñoom bu ma demee ci suufu xaras lay dal di sujjeet suñu dana ma xamal ci tagg yàlla tagg woo xam ne musu koo xamal mbindeef dégg nga te mbindeef dootu ko xam dana ma xamal ci kañ ko loo ne keroog la ma koy xamal kenn musu koo xam te keneen dootu ko xam bu ko defee ma ko taggee sabbaal ko mu ne ma yëkkati sa bopp tey du bisub jaamu boo defee mu daal di may ramloo daal di may may ndigal mu daal di tàmbali nag atte jaam yi foofu bi nga xamee ne ida samtu ku wirat wa ida nujumul kadarat suñ borom mërmëral na jant bi ba amatul leer mu lëndëm ka ruus mu maasale biddiw yi ñu lëndëm lëndëm goo xam ne kenn du la ko mën a misaal waaye wa asraqat al ardu bi nuri rabbiha wa wudi al kitab wa jia bin nabiyina ba nga xamee ne mbirum suñ borom nee na tëll suuf si suuf soosale laa wax dal di leer nañ ba gën a leer bëccëg ñu dal di xam ne mbirum suñ borom a ngi ñëw te àtte bee dal di nay dikk ba mu dikkee wa wudi al kitab wa jia bin nabiyina suñ borom a ngi tàmbalee ci yonante yi alayhimu salaatu wasalaam lay njëkk laaj ndax xam naa ne ñu li war a fi wax ne bu fekkee ne bukki tooñ na la nga daal di jëllu dóor gaynde bukki bi dana xam moom wàllam kon eh, jaam yi nga xam ne suñu borom daf leen a yónni woon nga xam ne mu ci ñoom mooy ñu gën a sell ci jaamam ñi mu tànn leen ci ba yónni ba doyloo leen yónni leen waxtu woo xam ne ci ñoom la tàmbalee kon ñu ci def defe naa ne daañu jàq suñu borom daal di woo Nuux alayhi salaatu wasalaam ne koy yow Nuux na nga defe ndax jot li nga la ma la waxoon yonte yàlla Nuuxin taxaw taxaw taxawaay bu jëgg xamul lu muy wax ci yëpp bokk ne laa ilma lana illa ma alamtana laa ilma lana innaka anta allamul ghuyub xamuñu dara dara dara dara yow rek yaa xam ba mu leen yërëm ne nag dellu le delloo seen xel yent yàlla noohin dal ne ko jotal naa la nga ma waxoon ñu gëdd xeetu noohin ne leen ndax noohin jotal na leen li mu leen waxoon ñu ne déedéet kenn musunoo xupp kenn musunoo waar kenn musunoo wax dara suñ borom dal di wu Isa alayhi salatu wasalaam mu taxaw ci kanamam ñeen fukki at mu wedam ko fit bi naaw mënatul wax xamul lu muy wax ba suñ borom tol ko yërmandeem dalal xolam ne ko nag anta qulta linnaasi taxisuuni wa ummi ilaahayni min duunillah yow ndax yaa waxoon nasaraan yi ne leen na ngeen ma jàpp man maag sama ndey nu di ay yàlla ngeen di ñu jaamu ndax yaa ko waxoon yent yàlla Moussa yent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam mënu la tontu ndax tiit mu taxawati biir bu yàgg yàgg yàgg ba yërmande suñu borom wàcc mu soog a dal dal tontu ne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 nee naa leen ngeen jaamu yàlla mi nga xam ne moom moom moom leen te yàlla ngi ñuy seede lépp lu ngeen def moo ko xam xam na seen li ci xalaat yi dox ci seen xol xam na lépp dara du ko ci te dana ko réglé ma ne biir li ma nekk ci ñoom ci seen biir loolu laa leen daan wax ba nga xamee ne rey nga ma ba nga xamee ne jóge naa ko itam rey nga ma itam yow yaa leen di seede yaa xam la ñuy jëfee yow seede nga lépp lu xew boo leen mbugalee say jaam lañu sañ ko boo leen jéggalee yow yaay ki nga xam ne ci yow la ñu séenoo ndax yaay ku tedd ci yaay ki xam xikkam yaay ki xam ne sa safe mu mun fenn ba mu ko xamee ne yonent Yàlla Isa suñu borom noppi na nga xam ne yonent yëpp wax naa ñoom noonu la nag dal di tàmbali nag teese gisi jaam yi jaam boo xam ne moo daan xisaab boppam fii du am xisaab dana gudd ngir may dellu ci ñi nga xam ne mbir ma nan lay tiise di ci jaaraat xëy na sax ñàkkul yaakaar naan yàgg ngeen ko dégg mel daal bis boo xam ne nit ku nekk yaa ngi jàq di xalaat sa bopp boo séenee ko mas a ci àdduna da nga xalaat ne jëmbul xàq ji mas a dox seen diggante te dana la dana la téye fayu ne ko boo ko séenee da ngay daw ne seen ta ndey daw seen ta baay daw seen ta doom daw ak képp koo mas a dëkkal muy mbir mu tiis waaye loolu muy gis lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na am na jaam yoo xam ne mbir moomu yàggaayu taxawaay baag ci sëpp mooy gën a wees ñoom julli ñeenti rakka wala ñaari rakka waaye kon ni ma waxee woon rek ne jaam ñi ñu rawante ci seenu ragal yàlla ak seenu bari bari jaamu yàlla ñii bis boobu duñ ko fekke sax dina leen fekk ci béréb boo xam ne suñu borom dafa leen fay beer ndeel loolu bokk na ci li koy maye ngir soppante ngir yàlla maanaam jëpp jëmm joo yaakaar ni rek am na cër ci yàlla wala suñu borom fonk na ko nga fonk ko ngir yàlla daan mas naa wax yonte yàlla Moussa ne a defal mu tudd mboolem xeetu jaamu yàlla bu mas a jaamu mu ne ko déedéet loolu lépp sa rek nga ko daan defal man mu ne ko nag kon nga xamal ma loo ma lu mas a defal ak lu ma la mën a defal man mu ne ko loo ma daal mooy nga seet koo xam ne kii bëgg naa ko nga bëgg ko ngir loolu le loolu moom man nga te Seydina Abdul Qadir Jilani wax na ne bokk na ci ñi nga xam ne ci taxawaay boobee dañu nekk ci béréb boo xam ne suñu borom daf leen di berndeel mooy ñoo xam ne dañoo soppante ngir yàlla ànd ngir yàlla di dimbalante ngir yàlla di digal ku ci xamal sa morom lu baax ci li koy jëriñ ci diine mu wax ko di di doolante muñ di santante lu baax fii ci fii bëggee def loo xam ne lii lu dul noonu la sa morom dindi la ca borom dana leen boole ca ah am na sax hadis yoo xam daañu wax ne siraat safara yi nga xam ne moom la tiim dana wax naan ba benn jaamu yàlla dana ko jub mu ne ko jub jaamu mu ne fa inna nuura rabbika yutfi'uni dana am jaam yoo xam ne bu ñu jubee siraat safara daf leen di wax gaawal jéggi sa leeru xar kanam ba mu ngi may fay nga xam ne leeru xar kanamam rek dana fay safara loolu lépp ci maanaam kattanu ngëm ak kattanu bëgg yàlla moo koy may doomu aadama bu ñu jógee xaw na xaabaabal ci fàtte xaw na digression bu gudd na xaw na ci la sax ci mbirum koor da waxtaane woon ñu gannaaw dañuy wax ci asraaru diini waxoon nañu gannaaw ñaari baati seede yi bu ko nit ki tuddee tuddee ba nga xam ne léegi dugg na ci biir xasir al islam julli waxtaane woon nañ ko waxtaane nañu jihaar waxtaane nañ aj waxtaane asaka koor itam waxtaane nañ ko ñu war a dem ci mbirum xam-xam sakku xam-xam ndax l'islam xam-xam lu mu fooral la lu mu yëkkati la lu yonente bi santaane la ba tàyyi ndax alquran dafa ci dikk aaya yu bari ci saar yu bari di réyal mbirum xam-xam ndax ku ko xamul suñu borom dafa ne na ma xam bala ngeen may jaamu bu ngeen ma xamul naka ngeen may jaamoo wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni gannaaw doomu aadama dañ koo bind ngir mu jaamu te jaamu gi bu ko mën a def nam sellee seet xamul daana fàttali ne eh, laam googu sax ulama yi dañ ci wax ay wax ndax daañu ne laam gi du laamu taalil du illa laamu eh, sayruura la te laamu illa mooy tey maa ngi togg lu añ ngir ma lekk damaa xiif aajowoo naa lekk kon loolu lu ma aajowoo la suñu borom aajowul ku ko jaamu ndax jaamu mbindeef yëpp jëriñu ko dara bu ñu ko moyoon ñoom ñëpp bu ñu àndoon di ko moy mooy gi wàññi ko dara kon xarab moom nafyul xarab yi anillah suñu borom amul xarab ñu ne laam gi lan la laamu sayruura mooy léegi ah ngir ñi ñi ñi illa li yabudu ndere ngir ñi mujj nekk ay jaam masalan ku ñu dund da ngay daal di nekk jaam ndax ci la dund moo la moom maanaam dañuy mujj nekk ay jaam ci li ñu mun la bañ buñ ko jaamu buñ ko jaamu yëpp dañuy nekk ay jaam loolu muy xalaatu lenn ci ulama yi dama xalaq ci jinne walente illa li yabuduni kon iraytuni qabla an ta'buduni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne اطلبوا العلم ولو بالسين علماء يأمنك أي اختلافات اسناد به يمين اسناد ضعيف له ويأمن كبيرا اطلبوا العلم ولو بالسين من جن ساتو خم خم دون تجارون من جن دخ دوسي وحسين سا فسر إلى سين سرين في جمعنا إراواتنا جمعنا يأيزا خمنا ما يميت نيتوكي تخوكو ملوان نيمنا اللي سنبرون وحنا في القرآن ما innama yaxsha allah min ibadihi al ulama ragal yàlla dëgg dëgg dëgg ragal yooyu xam ni rek ñoo koy def ñoo ko def waaw ñan ñi nga xam ne ñoo ñoom la ne suñu borom ne ñoom rek ñoo koy ragal dëgg dëgg ragal mu di ulama yooyu ñu dollu ne wa ma yaalamu taawilahu illa allah wa rasikuna fi l ilmi ulama yi wuti nañ ci li arab bi ñenn ñi war rasikuna fi lañ ko def ala ko ataf kon ñu ne alquran kenn xamul taawil bi ku dul yàlla ak rasikuna fil ilmi manam ñi nga xam dañoo sax manam dañoo am dëgg bu kaw ci xam-xam dañoo am daraja bu kaw kaw ci xam-xam man dañoo xam xam-xam bu bari lool ñaan ñi def ko waaw istinaaf wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma zakaru illa ulul albab sun borom dellu wax koo xam ne dafoo ne shahid allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwa al aziz hakim aay yu bari yoo xam ne dafay yii dafay classé borom xam-xam yi bu yonente yi ñëwee rek mu teg leen ci ñii mu di leen jiital sax ci siddiqoona yi mu di leen boole ñoom ba noppi am yeneen xadis yoo xam ne dañoo wax ne daa ji nga xam ne moom la ulama yi di bindee bu yomal xiyaamee dañ koy peeseet deret yi ñi nga xam ne dañoo dee ci jihaar ñu ne sax te daa yi ñooñu mu ëpp doole bu keroogee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis yu bari ne ñi nga xam ne jaamu ku xam noonu la gënee jaamu ku xamul mi mel ne ñi abu bakri ni siddiq gënee mboolem nit ñi yeneen riwaaya yi ne beneen xadis ñu ne beneen xadis la ñu ne beneen riwaaya la ne ñi nga xam ne jaamu ku xam noonu la gënee jaamu ku xamul mu ngi mel ne man yonente sallallahu taala wa sallam ni ma gënee ka gën a suufe ci yéen ñu ne fadlul alimi ka fadlu qamar leelatal badri ngëneelal borom xam-xam xam-xamul islam mu ngi mel ne weer wi ci waxtu mu matee guddi guddi fan ak ñeent ulama yi nag am foofu xam-xam am fa ay waxtu yu bari wax yu bari yu wute ci kaw ndax xam-xam bi xeetu xam-xam bi nit ci xam ba may ko dara jege ba nga xam ne ay nelawam sax buy nelaw tuyaaba diñ ko ciy bindal moo ëpp tuyaabay ci jaamu yàlla te xamul ñu ne kooku du xam-xam bu ne ñu imam al-Ghazali radiallahu anhu ne xam-xam boobu kat du teggi ni nga xam fiq na nga war a jullee na nga war a woore na nga war a ndate asaka na nga war a xaje ak yooyu yëpp du loolu ndax ñett ñett tax na nu xam ne du moom benn xam-xam boobu xam-xamu fiq boobu dañ koy namm ngir jaamu loo xam ne dañ koy wut ngir lii mënu la gën la tax ñu di ko wut masalan tey su fekkee dañuy wut xaalis nga dem di bay tool ngir bëgg boo ko jaayee am xaalis tool bi mënu la gën xaalis ndax bu dul woon xaalis bi doo soxla tool bi kon nag xam-xamu fekk boobu gannaaw da nga koy sàkku ngir bëgg a jaamu xam-xam boobu mënu la gën jaamu bi kon beneen xam-xam tax ñuy wax ñaareel bi ñu ne aji jaamu ji war naa xam fekk boobu ba noppi ndax bu bu bu xamul fekk boobu duñ ko tuddee aabit kon aabit lay doon aji fo lay doon kooku day fo kon nag xam-xam bi tax ñuy wax naan ki ko xam mu gën a ak jaamam mu ngi gën a jaamu ci xamul ñi nga xam ne noonu la abu bakri ne siddiq wala rasulullah alayhi salatu wasalaam gën a ñu des ci jullit ñi wala ñi nga xam ne laylatul badri maanaam weeru ñu fukki fan ak ñeent fukki guddee ñeent ni mu gën a leere biddi yi ñu ne xam-xam booba ban xam-xam la ñu ne gannaaw saxal nañu ne te lay nañu ci ay ibrahim yër ne du xam-xamu fiq ni ñu koy xamee xam-xam booba xam-xamu tawxid la tawxid booba mooy ban wala maa wax ne xam-xam booba mooy xam-xam bi nga xamee ne ci doomu aadama bi daf koy xam xerañub yàlla ma ne xikmatoom ci kaw ci li mu bind nga xóodu ci muy nga xam ne dafa lay dafay gën a dóoral sa tawxiid ndax suñu borom li gën a tegtale dafa ci aaya ji dafa wax ne na ngeen dellu seetaat ci kaw suuf sama kéemtaan maanaam am na ay dëkk ñu ma samp ñii daj yu dëgër te rëy nga gis yu weex gis yu ñuul gis ci yu xonq nga gis ñi ma bindee bàyyi ma yi gënam ñu téemaanee mbaam mi mel ak xar kenn ku ci nekk ak la la ko yàlla jagleel ak bind ba ci boo amee xam-xam bi nga xam ne moo lay xamal yooyu le yéemu bi nga ci yéemu nga jóge ci xam garab yi ak seen meññent nga xam ne menn ndox lañ leen di suuxat menn ndox mu taw mi menn la ndox mi mu taw ci sapoti bi moom la taw ci kaani gi nga seet lu téemaani yàlla ne nag min ad-dunya wa min al-jibali jududun biyun wa min mukhtalif alwan wa gharabi bisibin wa min an-nas wad-dawab wa nanu mukhtalif alwanuhu kadhalika inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wa ne nag xere xam-xam googu ngay xam hikmatullah ci kaw yooyu la Imam al-Ghazali firé ko misaal ko joxe misaal ne doomu aadama bu mel ne Muhyiddin ibn Arabi nga xam ne dafa xamoon nujumu samaa yi biddew yi asamaan yi xam seeni tàbbuwaay xam ni ñuy wëndeeloo xam biddew bu ci nekk diisaayam xam gaawaayam fii li muy wër xam yaatuwaayu la muy wër ci kañ la koy wër loolu lépp mu xam ko xam doomu aadama ji ni ñu ko dundee si biir mbind mi bu ñu seetee li ñuy wax anatomie maanaam eh, xam-xamu tasriix ci arab bu ñu seetee cëri doomu aadama yi ñu fees ko xar ko seet cër bu ci nekk ak la muy jëriñ ak xalaayaay maanaam atom yi ak molécule yi ni ñu tuuti ak benn bu ci nekk la muy liggéey nit ki xam ko loolu lépp min xaysu irtibaatuha bi qudratillahi laa min xaysu dabaatuha mu xam ko ci kaw nag teg ko ci yéene ci rek kattanu yàlla ak xerañam ak yéene mbindam mu yéemoo ko ca noonu ba nga xam ne daal day bàyyi lépp ak boromam mu ne kooku ci yéemu googu mu yéemu ci yàlla wàcc googu mu wàcc nangu googu mu nangu qudratullahi ak teew bu ñuy teew fi moom mu ne kooka la ñu wax waaye dégg nga du keneen loolu aay bi tegtal na ko ndax ay kéemaan yu ci kaw suuf yi yàlla bind la doon wax ba teg ci innamaa yaxsallaahu min ibaadihi ulamaaw loolu buñ seetee daanu gis ne lislaam ulamaaw yi yi ci gën a jéeju sàggani wuñu benn xeetu xam-xam ci xam-xam yooyu xam wax nañ ne xam-xam bi gën a ëpp njëriñ mooy xam-xamu tawxid te yooyu ci tawxid la dellu ndax bokk na ci tawxid bokk na ci tawxid nga xam kam daan dellu ci ci munaasaba boobu daan dellu ci aadama ni mu nekk xalifatullahi fil ardi nga xam loolu munaasaba bi ci nekk ci diggante bi nga xam itam eh, ne loolu dafa aju ci kàttanu yàlla nga xamee ci xereñu yàlla yi ma doon waxee léegi yëpp yi ma doon wax ci mbirum biddew yi ak mbirum suuf yi ak mbirum eh, géographie nga xam ko xam ni nit ñi wutee ak fu ci nekk na ñuy dundee ak na mu na nga xam ne eh, yi jeexital ci melaw jaww melaw asamaan ak doxalinu asamaan ci ñoom na mu jeexee ci ñoom lépp nga xam ko xam wéer wéer ko nag ci kàttanu yàlla ak am amam loolu dellu na ci tawxid nga xam itam tawxid bokk na ci nga xam malaaka yi yonente yi ak malaaka yi yonente yi tam nga mën koo xam da nga xam histoire faaw nga xam taarix jàng kenn ku ci nekk jamono ba nga ñëween ni adduna di mel ak na nga doxalee ñoom yan kéemaan leen woon ak lu waraloon a loolu nga xam ko bokk na ci tawxid kon buñ seetee daan gis ne l'islam ci fajaram maanaam bi bi l'islam soog a tàmbali buñ demee daan gis ne alquran li ay suñu borom ne maa farat naa ci kitab min shay'in amul dara lu yàlla sàggane lu mu woon ci kaw suuf daanu ko gis loolu itam su ko mën a gis mën koo xam mooy borom xam-xam boobu rek alim boobu ñu waxoon daanu waxtaan ci loolu waxtaan wu xaw a yaatu insha allah te buñ gisee ne lislaam jamono bi muy ñëw waxoon naa ne diine yu ko jiitu woon ñëpp bu bu yii dañoo ñëw fekk doomu adama nekk ci ndawam muy euh, diine yahudiya diine nasaraan ñëw fekk doomu aadama tollu ci waxtu waxambaaneem l'islam moo ñëw fekk doom euh, nit ci doomu aadama ñor ak ci nga xam ne léegi euh, xam-xamu xam-xamam mat na lépp mat na am na këyit mën na mool téere bu bind léegi dootu réer nekkatul ci buñ ko bindati ci matériel yu diis yu mel ne ay yàq wala ay dëkk ay ay tuufaan di ñëw maanaam ay ay mbënn di ñëw di ko yóbbu ay daay duñ ko naa waaye l'islam bi ñuy ñëw jamono bi nga xam ne mi ngi ñëw buñ seetee kaw suuf ñi ci gënoon a féete kaw ci xam-xam mu di Grèce ñu ñuy wax Yunaan ci arab Yunaan amoon na borom xam-xam waxuma euh, littérateur yi masalan ñi nga xam ne xam-xamu adab la ñu xam ak Sophocles ñu nga Homère borom Iliade ak Odyssée waxuma ñooñu waaye euh, philosophe yi nga xam ne dañoo gëmoon nekkuk yàlla gëm kàttanam ak man-manam nga xam ne dañoo wéewoon ci di ballalu di wéyee di ñuy wax raisonnement yéen nga li lépp loo xam ne lu rationnel la lu doomu aadama mën a xam ci xelam ci kaw ñu sukkandikoo ko ci mabaadi yoo xam ne dafa wàcce woon ci ay yeneen ñooñu di nit ñi gën a seete ko ci xam-xam ci jamono boobu buñ seetee ñooñu ñi nga xam ne ñooy professeurs yi xeet woowa di professeurs yi adduna bi ci mbirum semblé ci Socrate ba ci ku ñuy wax Platon muy Platon ba yi Aristote ñoom ñëpp ba ci bu ñu demee Misra ñu leen jiitu ci xam-xam yooyu Plotin ak Ptolémée ci defoon ne Énéade bi bu ñu seetee ñoom ñëpp ñu seet ne Alquran daanu xam ne Alquran loo xam ne mbindeef ak fu xam-xamam mën a àgg fu xereñam mën a àgg mënu ko la ñu gis ni mu leen rawe ak ni ñu delluwaatee gannaaw ak jamono boobu ni jàppe woon ne seen xam-xam àgg na foo xam ne duutu fa weesu wala dana fa weesu waaye lu yàgg-yàgg li ñu xasoon wax ba saxal ko duutu teppiku mukk ñu seet ulama yi lislaam yi bi nga xamee ne njëkk nañu fenkoo dëgg-dëgg ak la Grèce ma maanaam daal ñu naan nan lañ gis leen te ñoom gis ngeen ne jamonoy Sidna Omar ulama yi wute nañ ci ndax bi ñu ubbee ñu naan ndax bibliothèque bañ fa fekk na yenn ulama yi daañu waxal Sidna Omar naan dafa ne nañ ko lakk ndax bu fekkee ne dëgg la lu jub la yàlla jox nañu lu ko gën a jub bu fekkee ne du dëgg itam amuñu ci soxla ñuy wax ne naka xammaam yi ma néeg yi nga xam ne néegi sangukaay dañuy tàngal ndox nit ñi di gis ko ci penku ñu ne lu mat juróom-ñetti weer téere yooyu rek la ñuy xam moom la ñuy tàngal mais eh, am na yeneen borom xam-xam yu bëri waaye nañ ko ne loolu amul Sidna Omar lakk bibliothèque ba ki ko lakk mooy xilaaku ndéngo mongol yi loolu werante histoire la amuñu sax luñ ci itteel nañ ko bàyyi noonu li nu li nu bëgg a saxal moo di ne si jamono maamun maamun moo sasoon suñu wax daarul xikmati mu lu ñu a tudde léegi académie booba tubaab yi xamaguñu li académie ñu toxal xam-xam yi nga xam ne moom la grec yi amoon ñu traduire ko maanaam ñu tarjuma ko indi ko ci langue arab ki nga xam ne mooy njëkk di philosophe maanaam philosophe bi gën a mag moo di ahmadul kundi gannaaw ahmadul kundi farabi gannaaw farabi ibnu sina ibnu sina mooy avicenne xam ngeen ko loolu gis na ibnu tufayl wax ma ibnu tufayl abiroye waxaguma leen waaye ñooñu ci jamono boobu nga xam ne soxal nañu xam-xam yooyu ba indi ko gis nañ ne ñooñu xudama yi mooy ancien yi ñu yàgg ñooñu ci buñ dee daan euh, jottaliku ci waxtaan euh, xeeti xam-xam yooyu yépp ak bu ci nekk nañu doxale ak ba lislaam ñëwee fan lan la mooy xalaat lislaam ak fa mu leen fa mu leen wane ne lii dëgg la lii du dëgg ba nu tolloo ci jamono bii nu nekk ñi xam-xam joxe ne la alxuraan waxoon wala li lislaam waxoon mooy dëgg wane ne lañ waxoon njuumte la bokk na ci seeni njuumte yi gën a mag ñu fondamental ñi ñu gisee ilmul hay'a wala bu la neexee nga ne eh, ilmul falak bu la neexee nga ne cosmologie wala astronomie dañoo jàppoon ne suuf si mooy centre maanaam mooy digg lépp li yàlla bind li ñu tuddee biddeew weer jant di ko wër suuf si moom toog si mu toog yënguwul yooyu yëpp di ñu daal xalaat ne suuf bi mu nekkee nii ñu gis ne am na benn biddiw bi ko gën a jege bu ñu tuddee biddiw lu nekk ci asamaan si jiwandeelu ñu ne weer mooy li gën a jege suuf bu ñu ne weer ngi nii yoonu mu jaarale ni day wër suuf si waaye ñu mooy mercure ñu ne fa la jëm moo ëmb fële bu weer bi moo leen mu nekk nii di ko wër ndax mu dugg kon ku ñuy wax zuhra moom la fële jëm ëmb fi lu gën a fay le nit mooy zuhra ki may wax fay mercure ki may xamar weeru beneen bi ñëw dellu di wërati ca gannaawam mu tudd sant mooy ñuy wax jant bi di leen wër ñoom ñëpp ku ñu wax beneen bi ñuy wax mirreex mirreex mooy mars dégg leen ñu ne léegi tubaab yaa ngi yóbbu ay machine yéen ay machine ko jëm daal di wéet nii moom it di wéet al mystère Jupiter Jupiter moom it daal di koy wéret nii yoonam ko al mystère gannaaw mystère am na joxal muy benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar ci xal joxal nekk ni moom it benn yëpp ñu daal ne joxal mooy digg digg digg bi gën a sori ci asamaan abdul alaay ibn arib nee na wa xanan arbaul kawaati bi daaran nga xam ne ulama yu naan ñëpp nii la ñu fas foofu si mooy centre ñii ñëpp benn guddi bu ci nekk di wër di ko wër ba xalaat ku ñuy wax Copernic ak Galilée xam ngeen Galilée xam ngeen ne Galilée ba mu njëkkee ne suuf si mooy wëndeelu waaye jant bi wëndeeluwul nasaraan yi booba ñoo amoon doole ñu daal di ci gise ne mais dina diine ñu jàpp ko yóbbu Rome di ko torture maanaam di ko mbugal tëj ko ci kaso ne ko da ngay wedd waxoon ba noppi kaafaara kaafaara mooy nga jëf ak jaamu yàlla boo xam ne mooy far bàkkaar bu loolu nga waxoon ñoom dañ ko gisee woon ne masalam diine la bi ko bàyyee bi mu bu mu retraité bu mu demee bu mu nee suuf si wëndeeluwul damay fen ba ñu bàyyee ko bu ñu demee bay génn bunt bi këddee suufam ci tànkam ci suuf si mais pourtant elle tourne moo ne day day wëndeel ñi nga xam ne ñu gën diine lañu te bët mu jëmu saat bi ñu waxoon la bu des étoiles six ñu ne mooy mooy kursi yi da alquran ne na wasi ak kursi yi samawaati wala rek kon asamaan yi yëpp yëpp ay asamaan lañ ko tuddee woon kursi yi moo ko muur ni alquran waxee ne wasi ak kursi yi samawaati wala rek kon fii mooy arab ñu tudd al aqlu lawal ñoom ñu gisee ko ne kon mooy fasal yi nga xam ne mu dog la nangu ma ne fasal yi nga xam ne mu dog la daal ah. ndax dafa am ñoo xam ne dañuy wax fasal naa la rek mu ami seet ñu ne ñàkk nga jabar yenn ñu ne jëree bu ñu dee bu nga seen fay wala yeneen ñu demee noonu bu ma ci jógee am na ñaari seet yu ca toog moo di am fasal moo ni am naa ci ay laaj ndax dafa am ñoo xam ne moom la ñu bëgg a saxal teg ko ci kaw yeneen xam-xam yi dul moom am ñoo xam ne dañ ko bëgg a dab totalement may laaj conférencier bi maanaam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sallam wax nit maa ngi ciy laaj moo moo ci nan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dafa جدل لك بالنسبة والنحو من قطع الجنة ولا تكون قوة من الدنيا على النزول من رجاله أن من لا يرى من أن يأتي أن يعرف والسلام laaj bi nekk bi ñu di ñu passé te lu ma ta jàng ndax bokk na ci jëf yi nga xam ne day ànd ak doomu aadama bu kaw nit ñi seen ñu ci kaw suuf da aajowoo dañuy fase te kon kon nag aajowoo nañu xam fase fase danañu gis bu ñuy maye ci ñaan jàng ñett yoon fatiha ñaan ci maye jàng ñett yoon fatiha maye ñu xutba fase eh, tey ñetti buum la ñetti buum tee am sëy bu nekk ñetti buum la xeetu fase nag ñu bari la parce que bi ñu ci eh, bi ñu ci gën a taamu moom itam sunna mooy lan ku ku xam dong ko mën a fase moo di bi ngay fasee jigéen bi fekk na mu laab nekkul ci reegal te it laab googu su leen ci jote dara ba mu tàmbalee ba tey jote leen ci dara boo koy fase bul wax may baat bul wax beneen lu dul fase nga du fase nga yéene mel na fase ci sa xol nga wax ko benn yoon kooku seet idda ji jeexul sa tax tax bu ci war génnoo ci rek moom lañ tuddee salaatu rajati te seen fay na day dellu si rek ànd ak yéen fay na nag bu toogee nag ba idda ja jeex faw ñu mayewaat waaye buñ mayewaatee da nga compter fate moo ne ne mel na fate nga fa de gis boo ko ñaareelee muy ñaar gis boo ko ñetteelee léegi nag bu mu sëy ga dox na ñetti bu ñëpp jeex na kañ ngeen di mën a sëyaat baade jooju li ñu wax baade jooju mooy dana ci keneen ba dem yàlla dogal bu ko jógee bu delloo seen bu dem waaye sëñ loolu am bu fekkee ne nag fase mu njëkk ni bu ñu ko fasee da nga daal di delloo si rek te idda ji jeexul ba tey fase ma daañu ko limaale waaye takkaat bi ci war mooy li ma waxoon dafa am nag gannaaw fasem sunna fasem bàyyi ak fasem bàttat am sunne koo fasem bàyyil mooy fase moo xam ne fas si na faw takkaat war cef kenn du ko fay bi waaye nag waralul baada zow bi loolu mooy lan mooy buñ ko fasee ñaari fase nga ko fasee ndoo kon ba idda ji jeex wala mel waaye idda ji jeex na te bu idda ndax idda dañ ko limaale ci daanaka ci biir ndax boo bu fekkee ne da nga ko fase mm, maat bi nga faatu fekk du fa seen bàtta ka mu nekk ci biir idda ji daf lay doon loolu mu tax sa seen bàkka kon mooy sa ñi nga xam sa kàdda ci war mu def sa seen bàyyi kon mooy noonu sa seen bàyyi nag bari na sa seen jaahil dañ ko ciy boole donte naa ne fase la fase wax nañ ko sa seen bàkk nag mooy ñetti ñoo ko yi da da nga nga ba mu wala da nga jekki jekki tàbbal ko ci benn baat fase naa la ci fase wala nga def fase naa la juróom-ñaari fase wala fase naa la ba faw juróom-ñaari bi moom ñeent ñu ci def kontu ndax juróom-ñaari bu nekk te ñett bu rek tan boo naan fase naa la junni bi nit ñett bi ñeekoon rek moom rek a bokk dégg moo fase naa la ñetti bu mu yem waaye nag loolu bàtte la dañ ko jàppee fasen bàtte takkaat rek moo ci waa ndax bi ñëpp a gën a boo gannaaw bàtte boole nañ ci fasen jaay boole nañ ci fasen koo xam ne dañ koy fase dañ leen a xar yéen déedéet daal kooku façon ki nga xam ne dafa gaalu te ñu togg daxal mënam daxal bu dóori lu dul xar te façon bàtta façon rajiya façon rajiya moom ñu ko wax mën na nekk sunna ci kaw sax yooyu waroon a àndal façon bàyyi mooy mi nga xam ne takkaar war na ci te baada jawdi war ci façon bàtta mooy mi nga xam ne baada jawdi wax na ci soo ni bàkkaar nag mu tàbbi ci ñetti baat noonu ma ko waxoon dama ne am benn muy dem di dikk ñu ko si tàbbi ma ñett wala mu wax ko benn baat te wax bi benn baat même ulama yi wuute nañ ci am na ci ñi nga xam ne ñu dama ne ci ibn rus bin nee ñu bu fekkee ne benn baat nga ko wax moo xam da nga ne ko xablu ci ala xaari bi te bu ma sa njog rek wala da nga ne ko moom loo naa la sa bopp wala da nga ne ko may naa la sa bopp wala may naa la sa baat li mu ci mën ci doon rek pour moom benn ci lañ koy jàppee kon ulama yi wuute nañ ko am na ci ñoo xam ne lu dul fase lu dul beneen baat boo xam ne dafay wane ne rek jëm naa cee ba xaw moom lañ façon baat la façon ñett ñetti façon la lu dul ci waxu na umur si boobu am ñeneen ñu mu àndal ñoom dañ ko jàpp mel ci benn baat benn yoon rek mel fase lañ ko jàpp ñoom comme ñoom bu ubbe ji jeexul mën naa fay bu ubbe ji jeexee dañuy takkaat baa da koy jiwéru ci gannaaw loolu jihaar lu ñu wax jihaar lu ñu war a leeral la ci fase mooy nga ne nit yamale naa la sama ndey wala yemoon na laaj sama loxo ndey wala sama bopp ndey ak yooyu kooku du fase zihaar lañ ko tuddee zihaar nag nekkul fase waaye bala ngay jotatee moom dara bala nga ko laalati rek war na kafaara kafaara yi ñu waxoon yooyu ci alquran ñun wala bi ne zaharoon ñun ñu ko mun saa yi maa ngi ummaatuhum ummaatuhum illaa wala bu ñu leen di wax di leen tuddee seen ndey ñoom jur ñu leen dong duñu seen ndey ñii seen ndey mooy ñu leen jur rek unu maatu ñu unu lawala diini wooyu nu mu lay xawoon min xaram nas al wajuran ku ko def nag wax nga lu ñaaw bàkkaar nga rek nas al wajur ñooñu nag su ma wala ñu yaram ñu am suñu wax dina dina dina xaalu fa taxal raqabati da nga goreel jaam sa bi am wala isaam miskina miskinan wala woor ñaari weer bi nga sooga mën a joxe moom dara di gën tamit bu fekkee ne koor bi ngay def nga dem ba ci biir nga doon itam di wooraa doo ñëw ñaari weer mbir mbirum côté ñu ne bële bari waaye li nga xam ne daal moo di leer moo di ulamaaw yi fasam benn baat boole ñëpp wuute nañ ci waaye su fekkee suñu amee rek yoon jàpp na ko ci kaw parce que li nga xam ne moom la borom bi tudd te yoon bi ko jàpp mooy suñu forte ki nga xam ne xëy na jabar ji moom moomam téye na ko poñe ko di ko bëgg a jàmpaatal di ko bëgg a ree wala duma ko ba mu sonn na ko fateel mu fate moo ma di dara waaye nit kii dem naan sàngara ba mandi bu fasee fase na fase na bëgg na waaye bu fekkoon dafa mandi ci lu dul sàngara loo xam ne lu dagan la nit ki dafa naan lem ba xel ñu nëbbu muy bu fasee itam kooku yomb ko jàpp waaye bu dee sàngara yomb na ko jàpp buñ ko forcé wala mu wax bu waxee baat boo xam ne xamu ko aw làkk la yoo xam ne mu ca xamul lu muy teg mu wax ko te yëg ko ko jàpp waaye ci des yëpp bépp bu daal bu ko tee mu sàdd bu àndul ak sagom te li ko tee ànd ak sagom di sàngara te maanaam yow ba mu koy def moo ko tee sagom dana ko jàpp zihaar nag du sofe waaye dafa war bala nga koy dem safar pour affaire sofe mu gàttal loolu bi laa ci wax ñaareelu question bi moo doonoon mbirum ñi nga xam ne arab ñu jàng tubaab mooy mysticisme le mystique tasawuf mu ngi aju ci benn mëbda maanaam principe bi nga xam ne waktu naa sama waktu biir waxtaan waxoon naa ne nit ñaari xaaj la ruux ak yaram waxoon naa ne bés bàkkaar bu nit def day def taas maanaam day def ab gàtt ci ruuxam day def gàtt ci xol bi day lëndëmal xol nee ñu liir buy soog a juddu xolam day mel ne tànne lañ ko muure mel ne naat bu ñuul bu weex bu weex sallallahu alayhi wa sallam ne كل موجود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو يمجدانه أو ينصرانه فطرة الله التي فطر الناس عليها جند بيالة جند دون آدم من من جند خرم أم من جند كرم يبطل ما جند نتنا في الإسلام كوخا مكي ولا آدم سفرة لا ورد أجل نون لك نون لك جدي جوالة من نك نعم بايم نوخ يبطي من بطي نوخ يبطي نوخ يبطي نوخ يبطي نوخ يبطي نوخ يبطي نوخ يبطي muy maanaam loolu moo di nit di ñu juddoo xol bi dara jeexitale bu ci du lu baax du lu bon du lu ñaaw du lu rafet kon léegi muy mel ne ban du ñu tooyal ñu neex mën nga ko ne tabaxee suuf yu gis nañu ne euh, doomu aadama digganteem ak boromam amul yoonu muy jaar wala waxante li mu ci xol maanaam leeru xol leeru xol mooy lii leeral xol mooy xol boo xam ne bëgg adduna nekk ca bàkkaar nekk ca xol boobu day set léegi gis nañ ne saxaaba yoonu saaba yeeg nit yëpp ñi nga ci xam ne jaarante nañ ci ñoo seen bakkan watandiku bànneex not seen mer ba seen xol sell sell da ca war dañuy gis arasa kursi di gis lawhul mahfuz di gis malaayika yi yoonu tasawuf lii mag de moo di nit ki na jihaarante bakkanam ba amatul lu muy bëgg lu dul lu ko sariya bëgg loo amul lu muy bañ lu dul lu ko sariya mu set rek ci bàkkaar xolam leer nañu mu def jihaadu nafsi ba matal boo defee jihaadu nafsi ba matal nit ñi rawante nañ foofu am na ci ñoo xam ne bala ñuy mën a xam wala ñu gis la wax ma wala ñuy xam lu am ëllëg gannaaw bi ñu matalee seen jihaar ba noppi dañuy yéeg ci béréb takk seen i bët wala ñu gëmm di sikkar di sikkar ba adduna bépp bépp jëm ci seen xol ba ñu fàtte dara luy xëcc adduna jëmatu ci ñoom duñ gis lu bokk ci adduna bi jëm ci adduna dara lu leen di xëcc jëme ci adduna amatuñ foofu malakat ubbiku daañ gan loog malaayka yi daañ gan loog rox yi lan bi aay yi daañ gan loog kurus yoo ak alfa yëpp daan lay gis te loolu buñ seetee taarix ci jamono yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam la ñu tudde këstu këstu nag jafe woon na ci jamono yonente ndax yonente bi dafay jant jant nag bu yëkkati ko ba ci digg bëccëg leer la di ci tey noonu la ñu demee woon waaye saaba yi kenn ku ci nekk soxal nañ jële ci yow xam-xam li ñu tudde al ilmu laduni al ilmu laduni ci wet googu la ko wàllu yi ba loolu mooy xam-xamu wàllu yi mooy lenn ci xam-xamu yonente yi sidna Abu Bakr Siddiq bi muy waaj a faatu di wax ak Aysatu di ko jéem nee na ko lii laa am ci alal moo fi ne ñi nga bokkal ñaari ñaari góor lañu ñaari mbokk yu góor am ñaari mbokk yu jigéen tas booba benn mbokk bu jigéen dama la am am ñaari mbokk yu góor mu ne sa man benn mbokk bu jigéen laa am am ñaari mbokk yu jigéen mu ne ko ah kay te yaay doomam ngi ci biiram te jigéen lay doon euh, Abubakar fii leer bu xolam leer dam ne jàpp jigéen ji rek gis na li nekk ci biiram nekk gu góor nekk gu jigéen waaye képp ko mën na ko lay léegi moo xam ne jigéen lay doon mu wax ko naka noonu sidna Omar radiyallahu anhu doon na xutba julli jumaa ci ajuma te jàppe Madina ba mu yàgg mu naan yaa sareetu jabala yaa sareetu jabala yaa sareetu jabala bu muy génn Ali nabi Talib radiyallahu anhu dogale ko ne ko waaw li nga doon wax bi lay xutba lan la mun ah dégg na ko mun ko waaw ñu ci jàppe biir dégg nañ ko mu ne ko la benn waaye woon boo xam ne dafa jiite woon dégg nga mbooloo ñu jëggi woon jóge Misra am ay nit de brigand ay ay ay ay abdukal ko daal ñu eh, ba mat di mbooloo bu bari di leen waaj a dogale ñu waaj dajal ñoom ñu di ko wax ne jaar wëri doj wax bu ko defee mu mu féewale ñoom saar gannaaw ñaar fukki fan ak ñett la dikk bi mu dikkee nee gis na ci jégg na baatu sidna omar mu naan ko jaarante ba teet de ne booba sidna omar radiallahu anhu bàyyi bu bàyyi adduna ak jaamu bu jaamu yàlla ba xolam set ba leer leeraayu nuur ak ruuxam moo tax mu janloo taariya fa mu nekk xam ji janloo mu ñu bëgg a dajal xamit na nga ànd bu ne xamit ne bu jaaree te dana ko nit sidna Ousmane am na mbolam delegation ñu jóge yaman di ñëw boobu mo nekk buuru jullit ñëw muminin bi ñu dugg di ko nuyu kenn dugg ne mu ne ah yadkulu ahadukum wa fi aynihi atharu zina ala ta'lamuna anna nazara zina al aynayn am na ci yeen ci dugg te jeexitu ndialo nekk ci bëtam man da jottu dana la yaa xana xam nga ne xol ndialo la tek wa jooju dafa dajé yoon ak jenn jigéen ju rafet ci yoon mu xol ko setantal ko bu mu dikkee Seydina Ousmane ba mu ko gisee rek am na yeneen borom kest yoo xam ne daañu xam ne kii am na bàkkaar bu mu def mooy ne yàlla waaye duñu xam ban ci la ci def am na ñeneen ñu leen gën a leer xol daañu xam ne kii bëtam bii moo xool lu aram waaye du xam loola la mu doon Seydina Ousmane moom ci sellu ci matub basiram xam ne jëmm ji dafa xool ku jigéen te kooka du soxnaam du mbokkam mu gis bàkkaar bi gis na mu toll moo tax ñu tuubloo ko wax ko ba ko waxee ñu ne ko awax révélation maanaam wax ñu dafay am gannaaw sa yonent nekkatu fi mu ne déedéet wala ci naa siraatul muminin loolu moom la ñu tuddee kasfu te ali nabi talib moom soxla lu ma di ko waxtaane bari na trop moom daanaka moom moom liñ ci solo ci moom bari na naka noonu ulama yi bari nañu nit ki daal bu xolam setee wecc wecc wecc wecc xol maanaam sur mootum xol dafa mel ne seetu ndax maxtool dafa mel ne seetu ñaari seetu buñ leen jàkkaarloo nii suwar yi nekk ci bii day seen ca bee loolu moo tax nit ki bu fekkee ne mu ngi nelaw même bu matalul jihaad nafsir buy nelaw ba cër yi doon am na ko doon fëcc jëme ci àdduna muy bët bi nopp yi dégg nga xel mi xel mi nelaw nopp yi jéggatul bët yi gisatul dara lu ko fëcc jëme ci àdduna amatul bu ko defee xol bi ubbiku mbootum xol moomu daal di taxaw mel ne seetu suwar ya nekk ci la xam mu daal di tàpp ci moom ñu gis ko loolu mooy ar ruya saaliha min rajulin saalihin mooy gént bi nga xam ne suñu borom dana ko wërsëgalee ñenn jaam yi léeg-léeg dana gént boobu ay meroom gént bu gàtt lay doon te leer day leer njël fas njël lay faral di ñëw te boobu bu yeewoo boo yeewoo doo ko fàtte da nga koy xam loolu lépp ne foofu la jógee nit ki nag gannaaw di samata lu jaaram moo tax mu aajo woon nelaw pour mën koo xam te itam xam ji du yàgg du xam aajo woon ci coobaram itam dafa dafa daal na melxat rek dem ki nga xam ne nag dafa def jihaad bi nag ba matal ba xam ne ruuxam dafa sell sell sell amul kàttan boo xam ne moo ëpp doole xawaas yi ba nga xam ne maanaam sens yi di ko soxlaal wala dara moom noonu la la ro di mate basiram day mat ba nga xam ne moom bu wéetee rek donte sax takkulaay bëtam si karul lu yàgg mën na jàndal loo xam ne kooku na ñoo xam ne weesu nañ loolu ba mën nañoo nekk ci mbooloo ko di wax jàndal loolu nit ñi dañ cee rawante waxuma yonent yi waaye awliya yi ak si jëkkoon yi rek dañ cee manam ci mabda bobu lañ ko tëral li ko tëral moo jihad nak moy xex ak sa bakkan wattandiku aduna te djiblu sa borom ba taxal tel nya ta taw nag ci bakkan pour taarifam bat bi suñ ko xare suñ jëbee tasawuf wax yu bare ni ci am na benn waay boo xam ne ba ko ndeyam juree mu ngi tudd Raws ibn Murr Raws ibn Murr mooy mbokk Tami ibn Murr moom mu ngi tuddoon Suufa dafa nekkoon nit koo xam ne di ko yaayam ëmbee dafa ne woon naan dañuy jur naa sama doom ji di juddoo yàlla rek laa koy suutale ci nit yi nga xam ne moom la Sayyidatuna Maryam yaayam waxoon dégg mu def nag Kaaba ga di Makka di jaamu yàlla di bare Kaaba bi di ci tuur li ko lañ rek ak di wër dégg nga di def dara nga tuyoo dara wutul loolu kooku si bi suufa am na ñoo xam ne nee ni suuf yore yi si moom lañ lañ di askan moo am si sax li taxoon ñu si dul woon dëgg dëgg suufa waaye su numéro la tuddee waaye tax ñu tuddee ko suufa na benn bi dafa mar mar ndox jafe foofu ñu jàppandi ci siiraayu kaaba bi ba ñii daal di ko yaay juróom benn as nab ni illa suufati sama doom ji daal mu mel ne benn flocon leen rek leen Eh, ci ni mu woyatee ngelaw li di ko naawal loolu ñu dox ko nit ba ko suufa ñenn ñi ne nag suuf yi ñu gën ci suufaana suufaan genn gàncax la ñax la boo xam ne lu gudd jëm kaw day tëdd ci suuf waaye boo tëdd boobu mu tëdd ci suuf moo tax ñu ne ñu askan bi suuf yéene ñenn ñu ne ci ahlu suufati lañ ko jëlee ahlu suufati xam ngeen ne jàppee ñu di ñu jël sallallahu alayhi wa sallam mu xaddul woon lépp am na ci wet bu ñu xaddoon wet booba ñi nga xam ne bu ñu jógee Màkka ñu Madina amuñu fa ay kër te indi wuñu woon alal amuñu suñu dëkk ñoo ne lañ yoramaloon ñuy fanaan te béréb ba ñu ci ñu ci gën ahlu suufati ñi xam ne ko am lay dimbalee ñu jox leen ko ñu di ko lekk di ko naan ñu ci gën ahlu suufati ñoo am na ñoo xam ne ci loolu lañ askan waaye suuf yu ne am na ñoo xam xam ne dañu ne ñu ngi ko askane ci suuf bi firi leen leen ndaxte suuf yone yëpp maanaam mystique yëpp li seen i yére li a bari mooy leen nga xam leen moo gën a a ci yaram te dafay metti itam tàngaay te itam dafa dul sax ci yaram itam te itam bu lay fajal li nga xam ne daal nit ci dëgg àdduna ci seetu dara daal euh, doo nit loolu xéewal ak lu la neex yaa koy jëfandikoo ñoom suuf lañ daan euh, waddoo loolu itam mooy li ci gën a nit dëgg waaye suuf tasawuf euh, ci boppam li nga xam ne mooy mëbda bi آه، أبو حامد نرى أما التصوف في فرض عين لدى الغزالي بدون ميمي أركانه نعرف منها سبعة سمتا وجوعا واجتناب البدء وتوبة وسهرا وعزلة ثم استقامة آه، من عبد القادر الجيلاني بشي أحمد التجاني الإمام الغزالي كتنك آه، واحدة تصوف من الشيخ عبد القادر الجيلاني من التصوف مودي نيتي دا فاي بوله mën a xaritoog Ibrahima xaritoog bu mu xaritoog yàlla da koy roy ba mel noonu yàlla rek julli la neex lu neex yàlla neex la lu ko na xari na xari la doo bëgg dara lu dul yàlla nga boole ko ruuxaani ak Isa nga boole ko ñàkkub Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam nga boole ko nga ba tey Ibrahima nga boole ko dindi ah, eh, Zakariya yooyu ngay boole soo ko nekk suuf الحاكم الصوفي من عالم عن هي حقيقة ولم يدل فصار صافيا من الأكبار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا من ربه من البشر مستويا ديرها عين بالمدر كالذي يرمى فوقه كل قدير فوقها كل قدير ولم ترى من بطنها إلا مليء يقرأها الكريم واللئيم والبار والعاصي وتستديم وكالسحاب وكقطر الماء في الظل والسقي بالاستثناء صوفي دق borom xam-xam la boo xam ne dafay xam ñu jëfee xam-xam ba dëgg dëgg te du mukk mu mujj xolam sell ci bépp nax nax xalaat bu ñaaw dootu ko dikkal xolam fees dell ak xalaatu yàlla day dogg bindeef yi jublu ci boromam rek mu yemale dinaaru wurus ak doomu suuf day mel ne suuf si suuf lu bon lu nekk daañu ko sànni ci koom waaye boo waxee lu laab rek ngay gis day mel ne suuf si ku baax dana jaar ci koom ku bon jaar ci koom waaye day ndes dégg rek dara du yëngu day mel ne niir day tawal cer di tawal naaj di tawal toor di tawal kër lépp lay képp koo xam ne mel nga ni nii yow yaay suuf yi ko melu nag da ngaa woote rek ñen ñi parce que nee na ak ay ni nee na farata yi ràññee la jëmm ji nekk war nga ko jëfee na ay fonkam juróom-ñaar la tumt noppi noppi xam ngeen di nekk ci noppi waxoon naa ne benn xarit bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne do lu gën a lore ci doomu aadama ci ciram mooy lamiñ lan benn baat nit dina ko wax dana xuus ci kuri safara ay juróom-ñaar ci nawet ci baat bu mu wax wax nañ ne dégg nga moo gën a bon ñeent ci njaaloo jëw lan daal bonam te mënu ko wax te nit mënu koo téye lu dul ci eh, dara kon waata kaw fii boo xamee ne boo def nañu compte bi ci njëkk muy noppi am nañ ci xaq ndax sallallahu alayhi wa sallam lépp nañu kaana xawee na si tuuti ku bari woon noppi la ku yàggoon noppi ci koo xam ne mission bi ko indi maanaam liggéey bi ko indi ci kaw suuf mooy wax pour jubal nit ñi bu dul wax mukk loo xam ne lu yërmande yàlla lu lu ngërëmal yàlla nekk rek lay wax xalaat ak xalaat ci yàlla la waxam itam waaraate la lé jëfam itam jum man si jaamu yàlla la ko sump nag bokk na ci foom ci tasawuf xiif waxoon naa ne gànnaar yi nga xam ne moom la seytaane yi mata doomu aadama regaay ci la suñ borom eh, nee ñu ñaar yi gën a da yi gën a yi gën a bañ ci dagan mooy côté ak ak reggaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama musu la feesal ndab lu gën a bon biiram dégg nga kon waxtu reggaay amee nelaw dana la cee wala poos te yooyu yëpp li ci nekk luy alal nit kon ñoom du ñu defee xiif muy seen ñaareelu ponk wax nañu dëgg wakkandi ko biddaa mooy loo xam ne lii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko woon wala daawu ci jëfëk wala ñu ko sax jëlé woon ko ci maanay alquran wala maanay wax yonent wala ay bëtinam kooku mooy jidaa bokk na ci waxtu toog ci foo toll yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena di leen balu yalla man dana balu suñu borom ci ñu leen ci benn jotaay bi nekk kon nak ak sa bu du ak ci nak ñi ñu xamne ko toon lañu dëkkee ak saharu moy fop mooy bañ a nelaw guddi lo nelaw nelaw nelaw nelaw guddi amna waxtu yo xamne ne war nga koo yow njël boo yeewoo njël bu fekkee ne mënu la jàpp ba sell julli waxoon naa ne sànq ne Seydina Jilayli bi duñ ko gisee ci bàmmeelam duñ ko laajee euh, say jëf dafa ne li ma daan gis lépp suñu borom fay na ko ba mu jeex ba mu des mais rakka li ma daan julli njël rek moo jeexul xamu su mu ñëwee kon julli njël bokk na ci yi nga xam ne moo gën a bu fekkee ne doomu aadama bi mënu la natt ba kanam ba dem jàpp julli na yeewu lu bon bon jublu penku donte diggante bu ñu mën a ratt gàtt ba mu àggale itam mu sóobati daal te mu jublu penku xalaat yàlla lu bon bon ndax nekk na yoon boo xam ne bari na bari boo xam ne pour ñu xañ ko ko daanaka alak alaku na la kon sahar muy fof bu ko ënd ko fof boolee ci seen i ponk ba tey jaar nañu yoon loo toobatan wa sahar wa uzla ci ma istiqaama tamit istiqaama ci mooy jub nag jaar ci sariya rek mooy li gën a jafe wax nañ ne siraat siraat li misaalam mooy sariya nit koo xam ne yaa ngi topp ndigali sharia di wattandiku ay tereem jaar ci dig ci sharia jikko ju nekk nga seet ca la ca sharia santaane lam ca daj ndax jikko ju nekk foog la boo gis ci àdduna am na ñaari faras farasaan yi boo xam ne bu ci nekk résile la maanaam yàqu-yàqu la lépp sabe sabe sax ci boppam bu ëppee yàqu-yàqu la yonente bi salaa sallam alquran nee na ko laa taj alyadaka maxlulatin ila unuqik wala tattuha kullal basti bul def sa loxo muy li ñu gëx ci sa loxo maanaam bul téye bañ a joxe bopp ba mu ëpp waaye bul joxe jëpp joxe kon booy joxe na ko natt ci cere am na la ci gën a yow nga jox tey ko war a jox na nga baal ku nekk xàqam bul jox ci xàq ci bul jéggi ci jox ci bul maye itam ngir ñu ne baax eh, na nga yàlla te ka nga jox yooyoo jox li koy jox itam war ko koo jox dégg kon eh, cere a bépp fadila maanaam bépp dikkoo bi ñu la tëralee ni ñu la ko jaarale mooy digg boo xam ne boo jéemee jëm ci yëpp bi bakkar nga jël jëm ci bakkar mu ne sirat bo taxaw ci digg ba bo jëlee jëm daan safara bo jëlee jëm daan safara ci daan ci jaar la ko non non la ci nité non la jaar ci digg bi loolu tax tere mooy moy moy moy mooy sirat ci istiqama kon bu ko ñu ko boolee ci seeni kon bu wax ñu dëgg ñu dal dal ci boole ragal yàlla jami ak bakku li gëna mak dal daal tax li mag da am moo nit ki lépp lu koy xëcc jëme ci adduna na ko moy ndax nit bu bakkan bay rot maanaam non bi mu mujj noy buy àgg rek tàmbali naa gis bu fekkee ne mbugal la bu fekkee ne xéewal la dal di gis ci saa si fu mu jëm bu dee bu dee safara ndax mu ngi tàmbalee gi ci nga xam ne non bi rot na rek bu fekkee ne am na yu bëggoon lool ci adduna ba nga xam ne bu ko wanee gannaaw xolam nekk ci loolale ak bépp bakkaar bi mu defoon daf koy gis gis la cay mujj dana daal di tiit ak ci moom tiit boo xam ne dana njéejoo xuus ci safara ba génn ndax ndax loolu bañ a nekk ci xol bi li misaalam mooy sharia nit koo xam ne yaa ngi topp ndigali sharia di wattandiku ay tereem jaar ci dig ci sharia jikko ju nekk nga seet ca la ca sharia santaane lam ca bañ ndax jikko ju nekk foog la boo gis ci àdduna am na ñaari faras farasaan yi boo xam ne bu ci nekk résumé la maanaam yàqu-yàqu la lépp sabe sabe sax ci boppam bu ëppee yàqu yàqal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran nee na ko laa taj al yadaka maxlulatan ila unuqik wala tabsutha kulla albasti bul def sa loxo muy lu ñu gëx ci sa loxo maanaam bul téye bañ a joxe bopp ba mu ëpp waaye bul joxe gépp joxe kon booy joxe na nga ko natt ci séré na nga seet ci gën a yow nga jox ko da nga ko war a jox na nga baal ku nekk xàqam bul jox ci xàq ci bul jéggi ci jox ci bul maye itam ngir ñu ne baax nga rek wala ñu di la taral na nga jox ngir yàlla te ka nga jox yoyoo jox li nga koy jox itam war ko koo jox dégg kon séré ah lépp fadila maanaam bépp jikko biñ la tëralal ñu la ko jaarale mooy digg boo xam ne boo jéngee jëm ci wet bi bàkkaar nga jéng jëm ci bàkkaar mu ne na siraat boo taxawee ci digg ba boo jéngee jëm ni daanu safara boo jéngee jëm ni daanu safara ci daan topp tere jaarale ko noonu noonu la koy muccee noonu la jaare ci digg bi loolu tax tere mooy mooy mooy mooy mooy siraat ci istiqaama kon bu ko ahlu tasawuf boolee ci seeni fonk bu wax nañu dëgg ñu yàlla zahir ak baqi li gën a mat daal façon lii mag da am moo di nit ki lépp li koy faj jëlee ci adduna na ko mooy ndax nit bu bakkan bay rot maanaam non bi mu mujj noyyi buy rek tàmbali naa gis bu fekkee ne mbugal la bu fekkee ne teewal la dana daal di gis ci saa si fu mu jëm bu dee àjjana bu dee safara ndax mu ngi tàmbalee ci fi nga xam ne bi rot na rek